waa site bi yëpp ak téléspectateurs yëpp ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay ci bërëb bi. Euh, sëñ bi tur beeg sant bi. waaw maa ngi wuyoo Malick Cissé nekk marché HLM 5 centre commercial Mame Diarra en face Almadina centre commercial Almadina. dañoo ñëwoon fii euh, pour laajte la ba xam bagage yaa ngi jar emballage yeeg yooyu noonu ak Saint-Valentin bi ñu jublu si noo leen koy dundee quoi. waaw euh, sant yàlla ndax. Euh, bagage yi nga xam ne moom la ñuy jaay du ajowut sax ci bagage Saint-Valentin kase mais divers la divers bu ànd ak décoration la bëri na ay matières yu fi nekk nag yoo xam ne dana dox ci ay xew yu bëree bëri am na communion am na tamit ñu mel ni bisu Saint-Valentin bi am na tam pour baptême am na mariage am na même xew xew religion yi am na xeetu décoration yi am na fi moo yu mel ni palaatu laax yeeg yu mel ni estaraag yu mel ni ay balaas yu bari yoo xam ne ngente da koy soxla wala xew yu ci bari am na fi daal waaw bu fekkee question boobu yaakaar na nga may laaj bu dee lu aju ci sànq question bi nga mujjee laaj nii mooy Saint-Valentin bi waaw Saint-Valentin bi moom bon dama naan Sénégal jigéen ñi wax dëgg yàlla macha allah bëgg nañoo sëy bon yaa ngi koy xamee ci bis yu mel nii bu amee euh, même xale jigéen ñi nga xam ne amaguñ borom kër sax kenn ku ci ne yaa ngi jéem a xool noo toppatoo ki nga xam ne moom nga am yaakaar mu denc la comme bis yu mel ni donte la ñu ngi koy jéem a aj ci côté tubaab mais buñ ko xoolee ci côté religion muy koo xam ne day labat nga xam ne diine nangu na ko Euh, boo xoolee côté boobu boo ko xoolee ci côté boobu ñaari côté boo ko ci xoolee mën na nekk positif parce que boo xoolee lu jiitu weer bi ba mu desee ay une semaine yaakaar naa février 14 février la te boo xool li jiitu 14 février une semaine ñu yu bëri ndeysaan ñu ngi dugg si di xool yoo xam ne dañ ci mën a bëggal seen borom kër lu jiitu kon feet bi kon nga gis ne kon nit ñi ajuwuñ ci bëggal seen borom kër ci feet bi rek waaye dañ ko def ngir bëgg a neexal seen seen seen biir sëy te loolu ci jaamu yàlla bokk léegi tamit eh, dañuy faral di dégg ñi ñi di naan Saint-Valentin eh, loo xam ne religion bi kii nañ ko. du eh, loo xam ne religion bi nanguwu ko ñii di naan nangu na ko loolu tamit bëggoon nañ cee xam ba xam ban gisee nga ci am. waaw xam nga boo xoolee fête bi mi Saint-Valentin feetu tubaab yi la ñoo ko sos boo xoolee dégg naa ci l'histoire ñu ne tubaab yi bi ñu mosaan a féete seen indépendance maanaam kii bi ñu tuddee fin d'année bi daanaka bu ñu xoolee après décembre bi ba janvier daanaka économie bi day xaw a rëppeelu defee léegi ni ñu ne fête lañ mën a créer waat ci diggante bi boo xam ne dana mën a relancer relancer maanaam économie bi ñu xool gis ne amoon na ñaari couple yoo xam ne marqué nañ l'histoire ci seeni jamono ñaari couple ñu ne est du jël couple boobu jëm koo moomale bis tuddee ko ko boo ko defee mu nekk benn fête boo xam ne danaa am impact seen kii bi bokk na ci li ñu créer fête boobu tànn ko 14 mars couple boobu nag couple bu boo xamoo ne nee nañ woon na ñu bëri ba ndax couple la boo xam ne ñëpp lañ xamee woon ñoom ñaar mais tubaab yi li tax ñu def ko mooy ngir bëgg a relation ak seen économie moo waral ñu fente feet boobu bëgg mu am gën a am bës ñu tuddee ko ñaari coupe yooyu boo ko xoolee. boo ko xoolee waaw boo ko xoolee euh, nekkut loo xam ne feetu ko musulman la feetu tubaab yi la mi ngi feetu tubaab yi la waaw bu fekkee da nga ko natt ci wàllu maanaam bégal sa borom kër rek fekkee côté boobu nga ko nattee. moo nee naa la léegi ci gannaaw lu jiitu fête bi la quatorze maanaam janvier bi si biir janvier bi le vingt janvier ci bëri ñu ngi tàmbale jënd di bégal seen borom kër fañ koy kiyee kay mooy comme par exemple nga bàyyi ba bis ba yaa ngi dégg ne dama koy def ngir Saint-Valentin boo ko tuddee loolu mooy loolu mu mel ni tey ji 31 décembre jot nga nga bàyyi ba 31 décembre ne da ngay jënd ganaar pour bégal sama borom kër boobaa yaa ngi ci biir fête bi loo ci def boobaa yaa ngi ci biir fête kenn ku ci ne maqsuud bi nga ci am maam yéene bi nga ci bi moom la ko cosaan mooy fête tubaab la. waaw ah, tey dañu yi de wax dëgg yàlla ñu ngi ñëw surtout nag jigéen ñi ñu ngi ñëw di jënd décoration. ka boo xoolee nee naa la ëpp divers la kenn ku ci ne ak li nga xam ne moo la jiital ci wàllu jigéen ñi ñu ngi def bu dee décorateur yi tamit ak décoratrice yi ñu ngi parce que am na ñoo ne bi ñu ko jëndee tam mën nañu ko defaral seen bopp dañuy wut ko leen ko defaral ñu defaral moom ñu ngi ñëw baax surtout jigéen ñi nag wax yaa sol célibataire yi ñu ngi ñëw di di neexal ki nga xam ne moom la ñu yaakaar am mu takk mari tamit ñi nga xam ne awo yeeg ñu ngi ñëw wax yàlla allah di jënd pour bégal seen borom kër. waaw. waaw sama soxna moom mën naa wax ne man euh, chaque jour bu ma xëyee chaque jour amul bis boo xam ne maanaam du ma def ak moom bu fekkee Saint-Valentin mooy bégal sa borom bégal sa partenaire bu mooy bégal sa partenaire ma amul bis boo xam ne ko tuddee bégal Saint-Valentin bu dee loolu mooy Saint-Valentin bégal sa partenaire am bis boo xam lu ma xëy am yéene am yéene bégal ko waaw kay. salaam. waaw bi naa def. oui ça va bien. tur beeg sant bi. waaw Ibra la may wax borom Proxan Cuuraay marché HLM. tey dañoo ñëwoon fii bëgg xam ba xam euh, Saint-Valentin bi noo koy dundee ak euh, clients yi ba xam ñoo ngi ñëw. waaw Saint-Valentin bi nag waaw instant ah, xale yi ñu ngi ñëw waaw ñu ngi doy waar. waaw ñi ñi ngi jënd seen i cadeau pour jox seeni góor góor ñaa yi tamit di commandé ñu leen di livrer waaw macha allah daal mi ngi baax daal. tey nañoo xam ba xam. yan façon baax baax ñoo fi nekk et tout. ku la dégg waaw ku la xam na ne yow yu euh, bagage moom comme d'habitude rek ah yëpp ñu ngi fi ah léger yi doy waar yaa fi waaw sër cristal yaa ngi fi. per cristal yaay ngi fi parfum yaa ngi fi lépp lu bégal góor ñi li tax su waay di jooy fajar daal mi fi daal même jigéen ñi tamit seen bagage yëpp ñu ngi fi daal. mais ana sa Saint-Valentin. ah man sama Saint-Valentin bi fi <laughs> mi def ba mu baax saay yi mi def commande bu doy waar. <laughs> moom kay réew mi nar naa wàcc ba sera ndax li may dégg mu koy wax moom. bu ko jëndee xam naa ne moom bu ma tëddee moom jooy fajar lañ may woowee xam naa moom. <laughs> Euh, xale yi dañ koy jënd bu baax a baax a baax. moom bu ñu waxee Saint-Valentin kër ci la bokk moom da def sa dara blanc yaa ma gën a xam yii ne ci nga koy décorer ngay commencé ni coin ba ci kaw gisoo ko ni def décoration bu doy waar moom dafa miir xale yi dañ koo bëgg trop xam nga kër moom day dundal xool yaa ma gën a xam <laughs> yaa jëla ah. problème bi dafa doy waar kër bi dafa doy waar. kii bu góor gi taayaloon soo gis na da koy xool rek am envie am defal lu mu def ak yow. waaye moo tax bougie yi mënut a ñàkk quoi mënoo taal lampe bi te doo laal kër yi kër yi day am lu muy def ci xol. dama dégg ne dafa dafa jeex. Ah, esaay esaay non esaay ni xale yi ñoo ko jël doole <laughs> esaay xale yi ñoo ko jël ak doole moo tax bu commencé a ngi yaa gën a xam dafa mieux <laughs> jaajëf te. maaleykum salaam wa tur beeg sant bi. ab Ablaye Diagne. lan moo waraloon sa teewaay fii. waa tey dama ñëwoon pour bëgg soxna si rek. ci fête Saint-Valentin bi. pour jënd samay cadeau yoo xam ne ma koy offrir pour xolam gën a sedd waaw. voilà eh, nan ngay dundee Saint-Valentin bi aussi. sa sa valentin bis bu ne Saint-Valentin mais dafa am jour yoo xamante ni maanaam moom lañ gën a taamu quoi xam ne da ah, nga sa sa sa xam nga. Euh, defaraat affaire yi xam nga na dund dund bu neex am temps xam nga gën a waxtaanaat gën a sudaat affaire yi gën a réglaat affaire yëpp daal dund mbëggeel daal ci jour bi ñu xàppi nees yaa ma gën a xam fépp mais xam nga nit ku nekk tolluwaayam nit ku nekk tolluwaayam nit ku nekk waxe muy mais tamit man ci li ma jàpp man ah wax dëgg yàlla neex daal la ci li ma jàpp man ci li ma dund ci mbëggeel bis daal bis bu neex la man loolu laa ko loolu laa jaaxoo daal. waa mbégte mbégte jox ko sama xol wan ko ni ko kër gi yaay borom ñu dund neex waaw ah, dara du yomb ba ba seet nag. ah ma ko ma tamit yaa xam ah. mais li ma nekk nii moom day neex après bu jeexee jeex na <laughs> waaw. <laughs> maaleykum salaam soxna si. soxna def. maa ngi fi ça va. ça va bien. man Adama Sarr laa tudd. waaw. ah Saint-Valentin bi neex na de client yaa ngi ñëw gis nga bagage dañ ko war a livrer suñu client léegi léegi ah, waaw gis nga ñooy ñëw di jënd ay cadeau ay affaires décoratives yooyu. mais euh, nan ngay dundee Saint-Valentin bi ak sa Saint-Valentin. ah non man dama koy feete ba mu neex ah dama nar joxe cadeau bu riche ah defar sama sama néeg ba mu rafet incha allah. kon xam naa tey guddi bi tey daal du yomb daal. non du bu nar yomb ñu ba ko waaw nar yomb dañu jaay lal yi génn dem doxee. <laughs> lii kër la pour décoration la boo ko nekkee ci néeg bi nii lu ngay am ni bouquet la fuleur bi cadeau bi dina nekk ni gis nga lii nii ay plume yi séduction ya nii ngay def xam ne day day doy waar boo ci jëlee lii boole sa gant bi nii jël sa lubrifiant def ci a ah, foofu toj gis nga ñu nooyu nii jàppale jéeg ji ci seen sëy yi rek bëgg lépp neex